bu fukkeel bi al imaamul mahdi bu feeñee ba noppi jaayanteek moom lu war la ci bépp jullit ak lum ko mëna a kute doonte sax day raam ci neige ci galaas ba keroog mu yegg fa mu nekk waaye jaayante bi day nekk lu war yenenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi yàlla yónni ne moom mooy mujjanteelug yenent yàlla yónni ko si mboole seen nit ñi keneen ku ñëw bëgg laa gëmloo ne yenenti yàlla muhammad moomu sallallahu alayhi wa sallam moom moo dellu si waat wala yenenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo mii moom mooy al imaamul mahdi di la indil ay lënt-lënt loola boo naxut sa bopp xamal ni sa xol dana si sikki sàkk may laaj nag yow mi may déglu ana ban jëmm moo mës a wootee woo ma di melokaan yi yëpp ma tudd muy fukki melokaan ak juróom fukki melokaan ak juróom benn dajee si jëmm jooja kon ay caaxaan moo fi nekk ak wax lu la neex jubluwaay bi nag si wax ji mooy ne ah yenentu saasam comme que yàlla daf ko yebal si ku xees ak ku ñuul bam njëkkee wàcc moom si ñu xees ña la wàcc muy naariya su ñëwaatee nag kon mënta doon lu dut ku ñuul ndaxte yàlla moo ko yebal si ku ñuul ak si ku xees wàcc na suñu xees ña kon lan moo des mooy mu daal di wàcc si ñu ñuul ñi mbokk jullit yi lii ku koy dégg sax xam naa reetaan moo la war a gën a jàpp ndax neen gu mel nii nit du yaakaar ne nit amee ne fit taxaw jàkkaarloog ay caméra nit ñi di ko déglu mbooloo di ko déglu muy wax lu mel nii te ne da koy askanele xam-xam mu ne ndaxte yàlla dafa wax wa axarina minhum lamma yalxaqu bihim lam sa jublu kullu laaxiqin bihim min axarin képp ku leen dab ak foon mën a bàyyeekoo foofa nag boroom bi subhaanahu wa junjul ab xeet walis meneen ma kon képp ku ñëw gannaaw yonent gannaaw saxaaba yi gëm li saxaaba yi gëmoon gëm li araab yi yàlla wàcce woon seen biir yonent sallallahu alayhi wa sallam kooku da ngay bokk si ñi yàlla jublu si laaya bi kon fan lañ mën a sukkandikoo si laaya bi ba bëgg wax ne yonent sallallahu alayhi wa sallam kon ñëwoon na jamono day ñëwaat si jamono ngir dëggal li yàlla wax si laaya bi wa axarina minhum lamma yalxaqu bihim ku nekk loola xam ne ne firig nen la xel mënuka kaa waaye mënta wér yonentu sallallahu alayhi wa ba mu dellu si waatee lan mooy firi la ñuy nettali di jëlee si moom ña ko topp mooy ñi ne yonent dafa ñëwaat la muy def mu woroog la mu jëkkoon na jàngale te borom xam-xam yi daal di koy tuxal tàmbalee ko si saxaaba yi ak borom xam-xam ya si ni muy jàppee ni ñuy fasee ab sëy ni ñuy génnee azaka ni ñuy tuddee borom bi subhaanahu wa taala loola moom ñiy wootee woone yenenti yàlla bii moo ñëwaat nañ koy defee waroon naag na ko yenent bi jàngalee woon waaw ban lañ ci war a jàpp ndax ba mu jàngalee woon jamono jamiy xees wala ba mu mujjee jàngale jamono ba muy ñuul ban lañ ci war a jàpp di sant suñu technicien bi di Moustapha Ba si ay yitteem ak jéego yi muy def ngir mën a jooxe lii ba mën ko teg ci kanamu ñi koy déglu ak ñi koy seetaan yal na yàlla dëgëral ay jéegoom yàlla barkeel liggéeyam yàlla defal ñu tawfiq defal ko